le joueur arbitre faute technique boobu amul woon raison sax ci biir kii bi bu fekkonte ne suñu entraîneurs yi am nañ ñu taxawee lu jëm ci match bi